mbokk jullit yi mbokki taalibe asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ni ngeen ko xamee mbooleem xew-xew diine eh, yi am ci eh, Sénégal ba weesu sax frontière yu Sénégal la chaîne leader Sen TV eh, da cay teew loole moo indi suñuy tànk fii ci Dakar nekk ci Médina Gounass ci soixante-seizième allo 543 210. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa ni ngeen ko xamee la chaîne leader day ànd ak yéen di topp mboolem xew-xew diine yi ci Sénégal ba ca bitim réew ngënk ci diine lislaam taaw diine ji fii ci senegal ba mu yegsi fi mu yegsi ku ne ci ñoom euh, am na cim njàngaleem lu. Euh, jàngal na ko euh, nit ñi ba ñu wasaare ko ca bitim réew am na ñoo xamante ni euh, ci seenu dundu daanaka bitim réew am na liggéey bu am solo boo xamante ni def nañ ko ca ba seeni dimension internationale doonu lu ñuy natable ci réew mi di Sénégal loole moo tax la chaîne leader Sen TV teew ci Dakar nekk fii ci Médina Gounass ci édition 2019 ren di juróom-ñaar fukkeel bi ak juróom mbenn Thierno du Dem moo yore communication euh, bu Dental Daka ñu fas yéene waxtaane ak moom gannaaw bi daaka bi jeexee euh, ci njàngat yi nga xamante ni def nañu ko fi message yi fi juddu nees mën di def ba vulgariser ko waaye daaka bi itam impact bi nga xamante ni am na ko nees lay mën di def ba jariñoo ko ngir mu doon gëneel euh, ci Sénégal Mamadou ñu ngi leen nuyu. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ah, bandiraɓe julɓe yewoɓe sen tv kala ɗo mbawɗon wonde aduna he emin calmini on ɗo e dingadal daka madina gounas emin jooɗi ɗo e ɗo ɗo ceerno jooɗotono guila siraji dine cheikh alhaji mouhammad saïd radiallahu taala anhu ɗo o jooɗotono ɗo ha joni khalifa makko ɗo jotto ha oɗo ñalawma hannde e jaayi dos min beltanima on no feewi e garal mon ɗo jaayi dos contant nañ bo baax sen tew fii mhm. ah, maa ngi jéggalu na xëy na ning ko waxee noonu la waroon deme waaye ñun dañu taalibe ba ëpp dañu taalibe ba ëpp ndaxte euh, organisation bi waroon na bind ay lettres un avant le Dakar ñu xamal ñi ñi organiser nangam nangam nangam am na xëy na sax ñu koy def waaye ni koy defee xëy na àggul ci yeen Euh, xëy na loolu moo tax nit ki xaw a gis ne wax dëggal daal dañ ko mbiru taalibe bu ëpp te itam mbiru taalibe bi moo tax lii gis nga ci suuf la ñu toog sëriñ bi ci suuf lay toog taalibe bi ci suuf la ñuy toog ndaxte li leen indi fi mooy jaamu yàlla bu ànd ak toroxlu jaamu yàlla bu ànd ak toroxlu na leer kon mën nañu jàpp ni daaka mooy jaamu yàlla gu ànd ak toroxlu ak toroxlu fukki fan waaw diiru fukki fan yoo xamante ni daanaka ab gàddaay la goo nga xamante ni dañuy dummoy lépp loo xamante ni dafa doon ay neex-neex ba neexu àdduna waaye wëlbatiku itam ñëw ci ab manding mën nañ ko tuddee tudde noonu aw xuur woo nga xamante ni fa la ñuy wéttalikoo euh, sunu sunu borom ci wàllu julli ci wàllu wàllu wàllu ñaan sababu daaka bi lan la. waaw xam nga sababu daaka bi mooy njaay doomu aadama daa am lu mu soxla diggante ak yàlla. soxla nit ki ak bor ak boppam daa bare bare waay boo xam ne bu fekkee ne saggana ne rek dootu jox yàlla cëram ci kii parce que soxlay doomu aadama dangay ngay xëy les trois cent soixante cinq jours de l'année bés bu ne nga xëyee programme léegi <coughs> Siraajuddin Cheikh Al Hadj Mohamad Sayyid radiyallahu taala anhu mu dagg fukki fan yii ci àddinam ci dundam mu woo ci taalibe yi ne leen ñëw leen déglu wax bu jëm ci yàlla ñëw leen déglu leen wax boo xam ne da leen di njëriñ ci seen diine wax boo xam ne de bu ngeen ko dégloo day maanaam day saxal ci seen diine sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy li am solo sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy diine lislaam ñi nga xam ne yàlla def na ay taalibi seen cheikh radiallahu taala anhu ñëw leen gis fii déglu fii li nga xam ni di leen di dimbali seen cofel seen diggante ak seen cheikh Tidiane radiallahu taala léegi 41 chérif surtout seen cheikh Tidiane radiallahu léegi lañ fi jogee ñu ci dëkk bi de booguñu siraja diin cheikh alhaj mama sayd radiallahu taala anhu woote bi mu def woote la boo xam ni li muy euh, li mu yéenu bare na li ci njëkk mooy li ñu li ñu gën a soxla tey ci diine njaay tey tey jii diine lislaam dafa di nekk dafa dem ba nekk diine boo xam ne kenn wóolutu ko ñu dem ba lislaam ñu jàppe ko diine bu baaxul la diine buy reyaate la diite buy tooñaange la bi euh, diine buy salfaane ak xay doomu aadama la xam nga addina bi loolu lay jël léegi nag ku ñëw fii képp koo xam ne yàlla indi na la fi nga gis mbooloo mi ni ñu toll ñëpp toog ñëpp dal di jaamu yàlla ci poussière bi ci naaj bu tàng bi kenn ku ne li ngay def fi mu neex la te yàlla tax képp ku fi ñëw doo fi gis ku amee sax paaka doo fi am ko doo gis ku amee jaas doo fi gis koy xeex doo fi gis koy xulo nga xam ne ñii am na lu dugg ci seen imaanu billaay ba ñu mun a def loolu loolu benn abcès la deuxièmement siraaji diin cheikh alhaj ma sayd radiallahu taala anhu euh, wooteem bi wala daaka bi dem na ba nekkaat international mu ngi commencé 1949 49 def na ko 50 def na ko 51 defu ko 52 fekk mu dem Makka 53 54 defu ko mais à partir de 1960 ba bés ni tey mu def ko daaka bi yàlla baaxee nañu alhamdulilahi rabbil alamina xam naa ni dem nga bitim réew waaye boo génnee Sénégal daaka bi am nañu suñu kër Treichville Abidjan samedi ak dimanche bu ne ñu def def ko comme Dakar boo demee Douala am euh, euh, quartier nord am nañ fa kër boo xam ne nii la mel boo demee Yaoundé la même chose boo demee Libreville am nañ fa kër am fa jàkk di lii boo demee Pointe Noire gis nga ko am nañ ko boo demee Kinshasa am nañ ko boo demee Zambie am nañ ko boo demee Burunda Burundi am nañ ko boo demee keeña am nañ ko mais li ma gën a yéem ci loolu mooy bi ñu demee Chine sëriñ bi waxoon fii Seydi Hadj Mama Seydou radiyallahu taala anhu mu ni danaa dem ba Chine ñun dem nañu ba toog Bangkok Hong ñu def fa wasifa ci turu Seydi ma Mama Seydou radiyallahu taala anhu waaye boo fi jógee jaaral Europe abul benn dëkk bu nekk ci biir Europe abul benn ci biir France boo xam ne amuñu kër boo xam ne daaka la tudd ñu ngi fay daje samedi ah, ah, no dimanche ak vendredi almaañ la même chose am nañ ko am nañ am nañ ko ñaari ñaari kër almaañ am nañ ko benn Düsseldorf am nañ benn Berlin. Hmm. boo demee Belgique am nañ ko boo demee Italie am nañ ko mais li gën a yéeme man réew bi ma gën a xam léegi mooy États-Unis réew yëpp nag xam naa ko mais États-Unis d'Amérique boo demee am nañ suñu kër New York mu ngi tudd kër euh, kër Cheikh mu ngi nekk Brooklyn kër boobu jaay nañ ko léegi ñu ngi jënd beneen kër ñu euh, ci Brooklyn encore fi ñu wax Phosphore Road. ñu ngay jënd kër gi neuf cent quatre-vingt-dix mille dollars ça fait un milliard jënd kër gi kër gi am nañ fa dañ fay def daaka samedi dimanche lundi chaque mois encore am nañu daaka Medina Gounass bi ñu def Columbus Ohio am nañu kër daaka daaka Columbus Ohio dañ koy def quatre jours Thierno Ibrahima rakku sëriñ bi moo fay moo fay jiite man maa fa yore am nañu kër bu mel noonu New York am nañ kër bu mel noonu Philadelphia am nañ ko Washington DC am nañ ko Memphis Tennessee am nañ ko Atlanta Georgia am nañ ko uh, uh, am nañ ko Cincinnati Ohio am nañ ko Columbus Ohio am nañ ko Cleveland Ohio am nañ ko am nañ ko Los Angeles California. kon loolu alhamdulilah rabbil alamin international dimanche sut hajj ma Seydi uh, radiyallahu taala daaka bi am na ko. seulement ñun bariwuñu coow. Mhm. mais ci ci lépp dantal daaka bi. lan mooy liggéeyam ci édition yi nga xamante ni ñu ngi koy amal ak sax. mooy yar nit ci doomu aadama fokk ñu yar ko gis nga yàlla subhaanahu wa taala yàlla daa soxla jaam bu yaru gis nga jaam bu yaruwul addinam du baax alaaxiram du baax te képp koo xam ne bu nga dem ci yàlla àndoog yar ak teggin doo fa mën amee dara doomu aadama seytaan def ko not seytaan daa not doomu aadama mu koy won li mu bëgg. mu koy wan li mu bañ nit bakkañ topp ko njaboot topp ko bugg alal topp ko bugg nguur topp ko bugg jabar topp ko bugg ful ak fayda topp loolu yëpp bu fekkee ne àndul ak sëriñ boo xam ne da koy nee tegal fii sa tànk bu moytul daa ah, doo xam fu muy jaar te fokk nit ki am responsabilité ne reconnaître ne moom jaam la am na buur boo xam ne bi muy jaam kooku yàlla la tudd subhaanahu wa fokk nga am euh, yar ak teggin ni ngay demee foofu même kuy dem palais nga am audience à la présidence am na nooy demee doo doo doo doo doo sol sa sagar commune rek dem foofu parce que boo demee sax dañ lay doo fa dugg yar nit ñi ñu xam yàlla subhaanahu wa taala yàlla daa jara xam parce que am na ñuy jaamu yàlla fekk seeni soxla la ñuy jaamu am na ñuy jaamu yàlla seen poste la ñuy jaamu am na seen jaam ñuy jaamu yàlla fekk leneen lu ñuy jaamu fekk du yàlla fokk nit ki weetal yàlla subhaanahu wa nga xam ne yow jaam nga yàlla subhaanahu wa taala mooy sa borom mooy bi la sàkk kenn sàkku la ku dul yàlla moom rek nga war a jaamu ku dul yàlla ku la digg aljanna te neewuloo neewuloo na la jaamu waxu la dëgg parce que bu fekkoon ne mën na ko da lay xaar ba nga dee ngeen ànd waaye ku dee yóbbu ko ku la digoon aljanna te neewu la jaamul yàlla waxu la dëgg sëriñ bi fii lay toog ànd ak ñun fa tabaarakallaah ahsanul xaaliqiin sëriñ bi tey am na quatre-vingt-six ans waaye moom mooy xalifa boo xam ne day ànd ak mbooloo di julli cinq fois par jour bu jullee moo ànd ak ñoom di wazifa ànd ak suba ak ngoon mooy tudd seeni doom takk seeni sëy julli seeni néew toog ci eh, toog ci mbaar mi di atte loolu nag képp koo xam ne amul yaru lislaam du dem ci yàlla képp koo xam ne nag amoo ku lay yar ci lislaam doo mën a yaru ci lislaam hmm. lo loo loolu li koy firnde moom moo di ni euh, sànq bi muy bi muy bi muy ñaan euh, wax na ni euh, ñun dañu jóg di wuti am nañu nañu ko njariñoo njariñoo gi moom mooy na ku nekk xam li ko war mu mel ni message bi muy joxe foofu mooy nit ki war naa xam yàlla njëkk laata mu koy jàmm waaye itam euh, war naa xam ni diine lislaam rek mooy lii sax ci bépp jullit bu mënti doon. waaw message bi mu joxe tey suba message bi fekkee nga ko moo tax gaaw ma ci jaaraat dafa ne am ngeen kóolute ci yàlla subhaanahu wa taala bu leen tiit ndaxte yonent bi nee na sallallahu alayhi wa addina bi yëpp bu riirandoo jëm ci yow bugg laa defal dara te yàlla tudd ko mënuñ ci dara duñ koy def bu ñu réerandoo ñoom ñëpp bugg laa def dara yàlla tudd ko mënuñ ci yow dara kon nag looy tiitati mu ni bu tiit am leen yaakaar dafa ne buleen tiit te am leen yaakaar yaakaar bi mooy da ngeen teg leen seen bopp ci yàlla subhaanahu wa taala mu ne encore jël leen jël leen am ngeen ndaxte nit ki bu xes bu fekkee ne am na yàlla subhaanahu wa taala njaay dos borom ñàkkul dara képp koo xam ne am na dara lu dul yàlla amoo dara ku am dara ku am yàlla mooy ku am dara ndaxti lépp loo am lu dul yàlla dana na tàggu benn bés bay la fi wala nga tàggu ko bay ko fi kon nag yàlla rek ngay am nga nekk ak moom fii ah, ngay jóge fii moo lay jëlee nga ñu dugal si armeel moom nga fay fekk kon nag booy wut wutal yàlla booy am amal yàlla boo amee yàlla nga am li yàlla bind ndaxti li ngay lekk yàllaa ko bind li ngay sol yàllaa ko bind soo soxna bi nga takk yàllaa ko bind kon nag amal yàlla am ko ko bind loolu la Thierno ne am ngeen yéen a ko moom jël leen jël loolu la mooy message bi jëfandikoo xamal ne aussi ñu ngi woo ñëpp Sénégal la yàlla baaxee lii xam nga dem nga mag hmm. waaye boo gisee ni ñuy dajjee nii mbaar yi boo demee mina rek da nga xam ne mu ngi mel ni photocopie foofu ndaxte l'islam la ñuy woote fii am na benn waay bi ma ne barke dembu bu yéen nañu foofu waaye ñun dégguñu gisuñu photo si Hadj ma Sayid gisuñu ah, dégguñu turam ma ne ko xanaa doo dégg no di wax ci suba mu ne ma ahankay day ne no day ne nañu déglu kasetu Thierno ma ne ko ceer Thierno boobu mooy seen Hadj Mama Sayid radiyallahu taala an seen Hadj Mama Sayid musul woote ci turam musul woote pour poosam musul woo musul woote pour njabootam dafa ne yàlla subhaanahu ci moom laay woote ñëw leen ci yàlla ajibu daa yàllaay woo naa ñëw leen ci yàlla kon nag wootewul kenn ñëwal jox ma ñëwal defal ma ñëwal liggéeyal ma ñëwal gis yàlla nga sopp yonent bi sallallahu alayhi nga nga nga nga jàng lii lañ fi wootee lii lañ fi indi lii lañ fi def di ko ñaanal di ñaanal lislaam yëpp di ñaanal réew mi sëñ baa ngi koy ñaan guddi ak bëccëg réew mi yàlla na fi yàlla def dal def juboo def fi naataange. jaay su wax nga dëgg foofu am nañ fa ay jafe-jafe ndaxte dafa am ñuy joge Gàmbi fii am ñuy jógee Guinée Bissau am ñuy jógee Guinée Conakry am ñuy jógee Mali am ñuy jógee Mauritanie jaay doos du ñëppay wax pular sëriñ bi bu toogee fi pulaar la ñuy wax waaye ñu ngi jéem kenn ku ne message bi na ci jot ah, liñ ciy dimbali nag mooy organ presse yi yàlla leen yàlla fay donte nag sunu wàll am nañ ci loo xam ne bu fekkoon ne mun nañ ko améliorer day gën loolu sunu wàll sunu wàll organisation waaye jamono boo mel nii ci situation boo mel nii ci fan yu mel nii fukki fan du une semaine waa du deux jours trois jours bi liggéey bu réy la moo tax ñi nga xam ne am na leneen lu ñu bugg am na leneen lu ñu lu ñuy xalaat am na leneen leneen lu ñu yéene mbooloo mi moo tax ñu ngi ciy perfite profito barke démb am dafa am ñi nga xam ne ne wane nañ ci ci euh, ci ci ci audio yi wala nangam ne Dakar dafa am lakk lakk Dakar lakkati na am ku ne Dakar lakkati na gis nañ ko euh, euh, l'incendie ravage le Dakar waaye amul purement et simplement amul c'est faux du dëgg amul. voilà loolu loolu est-ce que euh, li ngeen réservé wu ci côté communication bi nga ko tey gis nañu at mu yàlla sàkk itam Dakar bi dafay lakk. déedéet déedéet at bu déedéet. Dakar bi mu commencé ba léegi trois fois la Dakar mos a lakk. c'est pas at bu ne c'est pas at bu nekk de 60 ba ba ba soixante ba ba 2019 y a trois fois de euh, kii lakk waaw retiré ko bu baax officiellement gouvernement Arabie Saoudite ñun dañ fay dem ils ont def nañ c'est 3080 morts mina ñooñu ñëpp moyen ñooñu ëpp moyen ñooñu ëpp organisation mais y avait 3080 mais bataille iranien ñoom rek lu ñu perte ça fait 5000 et quelques même y a des Sénégalais qui ont perdu bataille ñëwuñu faay bu mu ne am fo pourquoi du am fii yeneen organisation fii ñu ngi fii ci biir Sénégal atam ñaata nit ñoo dee ci accident ñaata nit ñoo ñoo lab ci géej gi pourquoi ñuy jël musiba rek di ko teg ci Médina Gounass loolu du dëgg loolu du yoon loolu du benn yoon problème day am fu nekk nañ ko wax mu leer problème day am fu nekk am na Makka am na Médina am na fii ci réew mi pourquoi ñu bay lépp teg ko fële ñu indi Madina Gunaas ah da ngeen nopp ah amu leen bonne organisation ak toppatiwu leen nag nangam ak nangam soo loolu du benn dëgg Ndiaye ñu ngi toppatoo ñu ngi def lu ñu man waaye nag bu yàlla ñëwee ak mbiram kenn mënu ci dara loolu mooy li fi xewoon pas négligence duwul ñàkk organisé duwul négligé du dara li problème bi yàlla indi woon makk av yow 2017 nga wax 2016 maa ngi woon makk bi bi giri bii di daanu ci biir kaab bi foo nekkoon j'étais là-bas y avait 380 morts ci biir kaab bi la daanu lu tax Sénégal waxuñ ko ñuy wax fi Sénégal 22 morts senegal après Dakar bi y avait amoon na beneen accident boo xam ne y avait 28 morts te ñoom ñëpp c'est jigéen fii benn jigéen deewu fi loolu la bugg leeral ñi ñi lool du dëgg ñuy taxaw ci réseaux sociaux yi di wax ne Madina Gounass lakkati na lii la ñu wax lakkati na kon xanaa Madina Gounass dañ ko def pour mu lakk. lakkati na kaddu bu ñaaw la dafa mel ni ñi fi nekk ay xar lañu wala duñu nit maanaam dañu négliger ba mu mënuñu garder seen bopp mënuñu am suñ sécurité am nañ suñ sécurité ba mot tëkk ndogal yàlla kenn mënu ci dara. ndogal yàlla kenn mënu ci dara. mais mais Thierno. Euh, ci sa gis-gis yow yu mel noonu. pour éviter ko lan moo ci war a doon taxawaayu xadara bi bi dantal bi waaye itam ñun ñi nga xamante ni ñoo joxe ak information lu ci war doon suñu taxawaay. askan wi nga xamante ni itam ak technologie bi fi mu yegg ku nit day euh, na dem boyal fële euh, ni daaka bi yooyu itam euh, am na ci message boo xamante ni en tant que yow mi yore communication dantal Daaka mën nga ko bu fekkoon ne ñëwoon nga jour d'appel à la mosquée à Bopp ko seen TV ah, kon jël leen ci li wax ah kon jël leen Thierno wax est-ce que jëlee ngeen li ma wax. jëloon ngeen li ma wax Ceerno nee na nañu jaw jaamu yàlla ànd ak yar teggin nañu moytu da commencé wax nañu préparé ànd ak yar teggin balaa ñuy jóge ci kër yi suñu duggee ci oto yi nan la ñuy nekkee fii nañu moytu safara nañ moytu nangam nañ moytu nangam li mu waroon def def na ko li des nag doomu aadama ma mel noonu policier yaa ngi ci gen yaa ngi ci circulation bi ñun ñaa ngi def lu leen neex doomu aadama moo mel noonu man def naa déclaration bi bi bi ma ñëwee fii balaa ma ñëw ci réseau sociaux yi bi ñu ñëwee fii bi ñu ñëwee fii woo naa woo naa ñi fi nekkoon ñoom ñëpp yóbbu leen ci Thierno Abdoul Aziz les responsables moraux de Dakar dégg nga man leen ñii ñoo fi nekk bugg nañ képp ko xam ne joxe nga information nañu xam sa information fan la jaar bu fekkee ne ah jaarul yoon danañu xeex ak yow am na benn organ presse boo xam ne yaa yaa douze ans te kenn gisu ko fi parce que dafa ñëwoon fii di joxe information yoo xam ne bugguñ ko ñu ne ko personne non grata fii ci Medina Gounass boo ba tey duggatul Medina Gounass duggatul Dakar waaye nag koo xam ni kenn ku ne fi mu nekk ni mu nga yaa ngi ak sa téléphone yaa ngi ak sa email yaa ngi ak sa yaa ngi ak sa whatever di toog di joxe information loolu mënuñ ko contrôler xanaa ñu dem ba dakaar ñu seet fan bi ñu ja ñu seet ki kii fan la jaar mais procédure boobu ah, kenn mënatu ko léegi parce que ah, situation bi moo toll noonu mais nag ñun li nekk suñu loxo ñu ngi koy defar ñu ngi koy contrôler ñu ngi koy suivre. jërëjëf question boobu am na solo ndaxte doomu aadama daa am lu mu soxla am na loo xam ne de koy soxla une fois par jour am na loo xam ne da koy soxla une fois par par minute loolu numéro un mooy ndox. waaye gis nga benn forage a ngi nii forage bi am na 12 ans forage bale bu bees la daaw lañ ko tabax mais Ndiaye doos ma wax la wax naa la benn wax boo xam ne war nga ci jàngal lu bari ma ne la ñun informel lañ daan def informel suñu forage bi bu njëkk bu ndaw bi dañu doon euh, kii rek euh, gas rek kii indi PVC bu 10 kale indi bu 25 kale indi bu 15 kale parce que pression bi barewul ñu commencé ko changé ba ngi defee satudoo bële am na ñi nga xam ne euh, ba tey comprendre nuñ ko bi ñu defee bii daaw lañ ko def la daaw lañ ko ubbi yàlla def na alhamdulilah bu fekkoon ne yëpp jaar na yoon ñëpp danañ am ndox waaye réseau bu màggat bi la ñu branché tuyau yu bees yi tuyau yu bees yi yow xam nga ne mun euh, euh, réseau tuyau yu màggat yi attanuñu pression ndox ndox bu bees bi am na encore ñi nga xam ne dañuy toj tuyaux yi am na ñi xam ne tey nañ ko am na ñi nga xam ne teyuñ ko daaka bi ñëpp ay gas léeg-léeg di ngay ñëw gis ci nit koo xam ne day gas fii muy gas kii la tuyau la mu bënn tuyau bi léeg-léeg sax ñiy liggéey fii affaire électrique yooyu dañuy gas fekk fii ñu gas tuyau moo fa jaaroon bu ñu demee nag ba taal machine bi bu ñu taalee machine machine bi am na doole ndox mi ah, ndox mi ah, ndox mi du dem parce que affaire bi dafa bënn moo moom problème boobu la ñoo amoon depuis di après midi côté mm-hmm. bii parce que dañu ne benn tuyau boo xam ne c'était pièce euh, tuyau 58 xaw ma 80 bon dafa am dafa am ñu fo bënn bon xaw ma je ne sais pas il a fallu ñu yóbbu fa ay camion pour jox ñi ñi ay ndox mais gouvernement gouvernement bi munu ma ne ñu ngi def 100 pour cent li ñu def li ñu waxoon waxuma ko de waaye nag wax dëgg la ñu ngi góorgóorlu parce que bu ndox mi passé am na loo xam ne pulaar nee na bu ñu demee jàkk am na lu tax loolu mooy sécurité mbooloo mi toll nii tey seen sécurité liggéey bu léegi ñun du ñu nelaw guddi ak bëccëg gendarmerie du ñu nelaw guddi ak bëccëg eh, eh, policier yaa ngi fi ah, oh, oh, eh, kii sapeur pompier yaa ngi fi on au moins mille éléments yi nga xam ne ñu ngi liggéey guddi ak bëccëg plus suñu organisation on veille à tout ñu ngi xool lépp ñu ngi xool ñëpp. kenn ku ne ni ngay waxee fi ngay taxawee li ngay xoolee ak ni ngay actionné ñu ngi xool ñëpp waaye nag njaay doos contrôler ñëpp yombul waaye nag ñu ngi def at bu nekk incha allah mbir mi gën a jàppandi. léegi yéen a ngi commencé di formaliser. Euh, seen i seen i organisation euh, muy tendre vers le vrai professionnalisme euh, est-ce que jotul léegi léegi ngeen di xaar ba jàkk bi des 6 mois wala 3 mois ngeen di soog a amal ay CRD ak nangam est-ce que mun leen ko commencer dàkk bi jeex na tey mois de mars 2020 la ñuy amal 77e édition bi ñu commencé ko à partir de tey jëmale ci mois de mars 2000. jaay de su wax nga dëgg noonu la war a demee parce at euh, at bi trois cent soixante cinq jours la suñu toogee ba des deux mois trois mois xëy na dinañ fi bugg mën a def dara bugg def dara waaye duñ ko man parce que jëlee ay Dakar mbir Dakar indi ko Madina Gounass sept cent kilomètres loolu rek yombul encore indi fi ay technicien def nangam ak nangam loolu yombul waaye ñu ngi koy jéem waaye yow Ndiaye Dios xam nga bu baax a baax l'esprit sénégalais. ba tey boo demee Soumbédioune ba tey ñu ngi coow nappkat yi seen leen seen gilet et pourtant les gilets sont là leen jox cadeau waaye bés bu ne nga dégg diw ah, gaal réer na kii nangam parce que sénégalais génne ko ci informel indi ko ci officiel lu jafe la xam nga ci dara yaa ma gën a xam waaye nag ñu ngi jéem ñu ngi koy jéem ci communication ñu ngi koy jéem ci électricité ñu koy jéem ci ndox ñu ngi koy jéem ci sécurité ñu ngi koy jéem ci lépp waaye nag yombul parce que daaka bi. ren rek ren ëpp am nañu vingt huit hectares yu bees am nañu deux mille et quelques hectares ren rek am nañu vingt huit hectares yu bees fii ak une semaine danañ commencé joxe daaka bi a lu mu bon bon danañ joxe à peu près trente à quarante hectares fokk ñu yóbbal leen yóbbul leen ndox yóbbul leen courant yóbbul leen sonorisation joxe bu ay cant ay cant yu bees cant yu bees waaw nit ñi ñoo bëri jamono bii moo bëri comme ni ma la ko waxee woon ñëppay ñëw ku ñi ku dem ren boo booy ñëw suba nga indaale sa mbokk loolu mooy situation bi. moo tax estimer nangam la ñu war a am nangam mooy war a am c'est pas possible. dañu boobu dañu doon compter à partir de 2000 compter tuñu à partir de 2000 compter tuñu ni doon compter daaka yi xam nañ leen ñaata lañ toll woon. kenn ku ne yooyaa chef daaka ñu jox la benn fichier boo xam ne dañ ciy bind ñi fi ñëw. waaye da ngay commencé un balaa dernier jour bi yaa ci yaa ngi deux cent trois cent par exemple yéen yéen bi ngeen ñëwee tey fan lañ leen di bind ñit ñi dañuy commencé ñëw ñëw ba am na ñi xam ne tey cinq heures du matin lañu agsi fii ñan moo leen mën a bind mënuñ ko depuis 2000 ñu xam ne mënutuñ ko après ñu jëm beneen façon ñu def benn yoon ñu jéem seet oto yi ñu ne boo bis bi war a jël 60 personnes à 4 bi war a jël 30 40 ah oh, oto gel-gel bi war na jël vingt cinq cette place bi jéem nañ ko mais c'est pas possible parce qu'il y a de fi mu nekk nii daaw am nañ quatre mille et quelques bus oto yu ndaw yi kenn xamul njaga njaay yi kenn xamul ña c'est pas possible on a bien essayé mais c'est pas possible parce que amuñu système informatique comme bi Saoudi am boo ñëwee da ngay def sa empreinte ñu xam ne telle personne dugg na te réew la jóge ñu amuñ ko fi ñi ñëw dañuy ñëw ak oto ñi ñëw ak saret ñi ñëw welo ñi ñëw moto ñi dox tànk ñëw munuñ ko mais on essaie. voilà léegi laaj bu mujj bi moom mooy euh, message bi euh, jóg na Dakar 2019 on l'a on l'a vécu ci jàmm ju ju ju ju mat sëkk euh, léegi naka la ñu war a mën a def ba njàngale mi fi tukkee ñu mën ko vulgariser ba moom impact. Euh, ci doxalinu sénégalais yi waaye am impact itam ci développement bu Sénégal. Euh, xam nga euh, àddina day dox gis nga am na benn programme boo xam ne yàgguñ ko commencé Sénégal ñu ngi ko wax daara moderne pour xale yi bañ ñu yalawaani ma wax la benn affaire Ndiaye doom Ndiaye Ndiaye dos ñu bari xamuñ ko ci Medina Gounass xam nga ñaata daara lañ fi am on a 118 daara fii ci Medina Gounass. amul benn taalib bu yelwaan amul Madina Gounass amul benn taalib bu yelwaan tous les 37 villages créés par Hadj Mouhamed Saïd radiyallahu taala an chaque village am na daara benn u ñaar amuñu benn taalib bu yelwaan ci benn amul ñoom ñëpp sëriñ bi dañ leen organiser ñuy lekk di naan di jàng loolu ñun ñoo ci raw gouvernement Sénégal bu yàgg ñun sëriñ bi Alaaji Mouhamed Saïd def na ko yaa longtemps xalaatuñu sax ñun nga gis taalibe bi ci mbedd bi di yelwaan même fii ci biir Dakar gisoo benn taalibe di yalwaan nga potam di yalwaan amul parce que amul Medina Gounass loolu nag sëriñ bi la bëgg a def ah nañu góorgóorlu doon ay góor tabax dëkk bi boo jaaroo ci dëkk bi tey amul benn kër boo xam ne den ko den ko passé fekk kër gi amul valeur plus de cent millions am na kër yu xam ne ñu ngi fi 300 millions 400 millions y' a 1 milliard amuñu benn fonctionnaire amuñu dara ay commerçant lañu ay béykat lañu ay sàmmkat lañu ñoo koy def loolu nag barki yàlla la ak seen xaj ma Seydi radiyallahu taala ak décision am ak jàngaleem loolu la ñu buggum mu àgg Sénégal yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jaajëf Thierno ñu ngi lay gërëm di la sant Thierno dem moom nag moo yittewoo euh, lépp lu aju ci wàllu communication ci Dental Daka ñu jàpp ni euh, Daka 2019 Euh, dugg nañ ci ci jàmm génn ci ak alhamdulilahi euh, rabbil alamina euh, sëriñ bi nag di Thierno Ahmadou Tijani Ba am na ci ay kaddu yoo xamante ni yëkkati na ko mu doon kaddu yoo nga xamante ni kaddu yi xaafisul xuraan la ndax bu ñu ko jëfee Euh, ama euh, ndam dong la ñu ci euh, jëlee ba nu mu ko sàkko ci di ci dem ci message am lañ ca mën a jàngee moo di dal ci li mu mën a doon ndax doon nañu utu yàlla am nañu yàlla kon nañu ko nañu ko jëfee loolee doon message boo xamante ni message bu bu fort la message la boo xamante ni gëm nañu ni du tàbbi ci noppi tëx ñi fi teew ñëpp dinañ ko jëfee waaye itam à travers Sen TV ak yeneen organe de presse yi nga xamante ne ñu ngi fi woon euh, bu ñu ko déggee itam Sénégal gi yëpp ñoom ñoo ci jariñu ba ci biir réew mi euh, ba ci bitim réew euh, moom it mu xamal ñu ni incha allah rabbi 2020 bu ñu yeggee ci weeru mars li nga xamante ni moom moo di soixante dix-septième édition bu mi dina Medina Gounass dinañu ko amal fii ci. Euh, Médina euh, Gounass euh, ñuy wax ni catum 1936 la ñu ko fi dooroon ci ni ñu koy defee nii. Ah, ma nga nekkoon 60 waaw 1900 1900. 60. 1936 kon la ñu taxawal dëkk bi nga xamante ni moom moo di Médina Gounass 6 janvier 1936 waaw 36 la ñu ko la ñu ko taxawal. kon ñu jàpp ne ci atum 1960 la ñu tàmbali ni ñuy defee daaka bi ni ci façon bi euh, ñu ko koy defee boobu boobaak léegi nag euh, gis ngeen njëriñ li nga xamante ni euh, moo fi am. ñuy wax itam ni bi ñuy samp at mi ñuy samp dëkk bi at moom itam ci la xalifa bi feeñ ci jamono. Madina Gounass. waaw le 6 janvier. lundi lañ ko sanc Uh-huh. lundi mardi mercredi jeudi ca Ramadou Diagne. waaw génn si àddina ñoo ñoo ñoo ñoo bokk. benn ma Madina Gounass moo ko moo ko mag trois jours. trois jours voilà loolu itam euh, am na ci am njàngat goo xamante ni mën nañ ko ci def loolee moom moo tax euh, sang bi euh, lu mu mën a am Madina Gounass moo ko ko gënal lu mu mën a am daaka bi moo ko gënal lu mu mën a itam toog ak jullit yàlla diir fukki fan di ndokkal ak a ngën gi mi def waaye itam di waqirlu ci sunu borom euh, mooy li ko li ko gënal ñu àndoon ak yéen euh, ci édition Médina Gounass Daaka 2019 Babacar Sow ak euh, ki nga xamante ni moo di so chauffeur nekkoon ci logistique ñu leen di gërëm di leen sant Ablaye Sow di gërëm itam ñiy teew wàllu communication dental Daaka ndax yombalal nañu sunu liggéey ci lu amul genn ko jafe-jafe jërë ngeen jëf ba déwén ak jàmm euh, ci 77e Dakar 2020 fii ci Médina Gounass